aousubillahi samil alim albaaxil xadim min asheytan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi comme niñ ko baaxoo amale ci waxtu yu mel nii fii ci maktabatu Cheikhoul Khadim daaray kaamil tey ñu ñëwaat ci ñaar fukki fan ak juróom ci shahru ramadan mubarak tombeek le 16 avril 2023 ñu ñëw ci thème bu am solo muy la dislocation familiale cause et maanaam tasaaroog njaboot gi lu ko indi ak lu ko waral ñu koy ñu ci war ak ànd ak sëriñ ahmad sugu sëriñ ahmad tafsir tasrif sugu ak ki ko war a modéré jotaay bi nekk Serigne Cheikhouna Bousso xam naa pour njëkkanteeg waxtu rek dañ leen di fàttali rek ñi nga xam ne ñoom ñoo jàllale waxtaan yi muy télé yi ak chaîne YouTube yi ak rajo yi mu mel ni télé bi di Touba Vision Touba TV da koy teg euh, Daaray Kamil TV da koy def en direct Touba Vision da koy teg euh, Touba production production TV Bichri TV Rava mi Académie Minan Siwal TV Icap TV Saxum Touba Touba Monde TV rajo yi tamit ñu ngi koy teg en direct te duñ ko rediffuser vingt deux heures xam naa comme itteel mën ko faa mën ko faa dabu muy RTS Touba Mbacké ak UCAP FM ak Benno FM di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo fekk waxtaan wi di santal bu baax waa bitim réew wax dëgg yàlla ñoo ngi jariñ ci waxtaan wi bu baax a baax mais ni foo jëm rek Amérique Europe Asie ñëpp ñu ngi bàyyi xel waxtaan wi di leen sant bu baax ci seen bàyyi xel gu ñu bàyyi xel waxtaan wi xanaa pour njëkkante waxtu rek dañuy jox euh, suñu Cheikhouna Bousso kàddu gi mi nga xam ne moo war a bi di sant bu baax tamit ki nga xam ne moo def conférence bi muy sëñ euh, Ahmed Tasrif Sougou bu ko defee ñu ñaanal ko bu baax suñu borom dafa ko ca ubbeeku te mañ koo jëriñoo ci baat Seexul Xadim kon sëñ Seexuna Buso bismillah asalaamaaleykum wa euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu kilifa yu baax yi fi teew ak public bi nga xam ne ñoom ñooy topp waxtaan wi moo xam ñi teew ci salle bi ñu nekk ak ñi koy topp ci réseaux sociaux yi ak télé yi ak chaîne YouTube yi tey nag ñu nekk fii war a seq waxtaan kenn ci boroom xam-xam yi dëkk bi kenn ci boroom xam-xam yi yoon wi muy sëriñ Ahmad Tasrif Sougou moom nag eh, buñ ko doon xamle ci lu gàtt dañuy wax ne kenn la ci yoon wi kenn la ci njabootuk sëriñ bi jànge fii ci biir dëkk bi ci ndaam daarul alimul xabir al azhar waaye yàlla dogalit mu génn wéyal am njàngam bitim réew ci jaamiatul azhar al sharif bi nekk keer yàlla dogalit ab gëstoom ak ay xam ay sàkku xam-xamam lépp mu jëmale ko ci ñaari wet muy wetuk diine lépp loo xamante moom mooy ndono li mooy cosaan li waaye tamit wàll gi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu société bi muy famille muy cama muy an nizum yooyu yëpp yàlla dogal xam-xamit ma xam màcc ci wàll yooyu te yooyu yëpp di yoo xamante ni benn bu ci nekk day complété moroom ji yàlla dogalit muy gëstukat di boroom xam-xam boo xamante ni day taxaw ci lépp lu ci saare njàngalem diine ak njàngalem Sëriñ Tuubaa waaye tamit di gës ak di jàngat ak di analise yi ñuy wax ay phénomènes sociaux te benn ci poñ yi bokk ci bi nga xamante ni moom lañu ñu war a traité tey muy at tafakkuk al usari asbaabuhu wa inikaasatuhu kooku daal mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal tey fii muy seriñ Ahmad at tasrif asugu jox ko tem boo xam ne nag benn la ci fànn yi nga xamante ni ci lay gëstu muy lan muy at tafakkuk al usari tafakkuk al usari nag bu ñu ko doon wax ci wolof moom mooy li ñuy wax famille muy njaboot comme ni ñu ko xamee ci wolof muy njaboot liñ ko baaxoo xamee moom mooy day tàppewoo day booloo day àndoo dañuy ànd dañuy booloo dañuy tasaanut ci seen diggante kenn ku nekk di jàppale sa moroom loolu la nga xam ci usra waaye nag bis bu ñu demee ba safaanu loolu am ak tàqale koo am kenn ku nekk jëm beneen côté kenn ku nekk nekk sa yëfi bopp loolu la ñuy wax at tafakkuk al usari njaboot gi tisaaroo yaay nekk fee bàyyi nekk fee doom nekk fee mag nekk fee rakk nekk fee tant nekk fee nijaay nekk fee liñ naan wéeru wante kenn ku nekk di jàppale sa morom dootul amati kon loolu mooy at tafakkuk al usari saa yu ñu daal doon benn dara du leen mënal dara loolu lañuy wax usra boo xamante ni dafa booloo dafa tappoo dafa lamboo waaye saa yu ñu ba loolu amul rek mooy ma wane tasaaroo am na leneen ak leneen am na yooyu nag moom lañu sëñ Ahmad di jàngatal jàngatal ñu tamit lan mooy ay sababam sabab yi tax famille yi di tasaaroo sabab yi tax famille yi duñ booloo duñ àndoo duñ jàppalante duñ dimbalante duñ nekk benn yooyu yan moo koy waral lan mooy sabab bi waaye tamit lan mooy ay jeexintalam ci famille bi loolu bu amee ban jeexintal lay am ci famille bi te bu ñu nee ban jeexintal lay am ci famille mooy ban jeexintal tamit lay am ci société bi ñuy dund poñ boobu daal moom la ñu suñu Ahmad Tasrif Sougou war a jàngatal tey kon duñ guddal ngir gañe waxtu dañuy daal di ñëw jox kàddu gi sëriñ Ahmad Tasrif Sougou kon sëriñ Ahmad tafaddal a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaam muhammad ibn abdullah wa alihi wa asxaabihi wa xayri ila yowmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu ci bërëb bu màgg bu sell bi suñu nuyoo ñu ci jiital xalifa général des mourides sëriñ Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa yokk ko tawfiq yokk ko wér yokk ko kàttan ba lépp loo xam ne mu ngi koy liggéeyal Cheikh Ahmad Bamba te mooy liggéeyal lislaam mu am ci lu kawe njortam am ci ngërëmal sëriñ Touba ñuy nuyu ñi nga xam ne ñooy amal jataay yi ci bërëb bu màgg bu sell bi nga xam ne ci bërëb yi nga xam ne jaar nañ fi am fi formation ci la bokk kon ñuy njukkeel sëriñ Moustapha Diatara mi ko sëriñ bi teg ci loxaam ak njabootam yépp ak Cheikh Mouhamadul Bachiru Jatara di nuyu euh, Serigne Cheikhouna Ahmad Bousso bi nga xam ne moom moo def introduction bi di kenn ci ñun di nuyu waa jataay bi yépp di wax ne thème bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaan ak yéen dafa nekk thème boo xam ne dafa am solo te mooy li ñuy wax njaboot njaboot dafa am solo am solo googu nag ñu ngi koy xam ci lislaam ban wàccuwaay la ko jox ba tax na bu ñuy xool solotu nisa danañ fekki borom bi subhaanahu wa taala naan yaa ayuha nnaasu ttaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama inna allaha kaana aleykum raqiba muy soññi doomu aadama yi di jëfandikoo baat boo xam ne bu koy borom bi jëfandikoo rek fi mu koy jëfandikoo lu am solo la du ne loo xam ne day yem ci àddina kese day dem ci àddina ak ci àllaaxira kon lislaam jox na solo trop li ñuy wax njaboot ba tax na borom bi ci boppam moom moo koy wax ne ci turam ci mbaaxam ci lay jëlee importance boobu di la wax ne seet leen ma ci man yàlla subhaanahu wa ci ngeen sàmm ko te xam ne man maa ngi koy suivre di ko topp di ko xool di xool nan ngeen ko yore te ni ngeen koy yore noonu da tax ma jàppandal leen yéen ñëpp mu nekk loo xam ne dafa bokk ci tërëriinu suñu boroom yi subhaanahu wa taala ci kaw suuf maanaam li ñuy wax fondé famille dafa bokk ci tërëriinu suñu boroom yi subhaanahu wa taala prophète yépp jaar nañ ci ba ci muhammad aleyhi salaatu wassalaam bu ñu xoolee alxuraanul karim danañ gis aaya bu naan wala qad arsalna rusulan min qablik wa jaalna lahumu azwaajan wa suruya wa ma kaana rasulin an yaatiya bi aayatin illa bi isnillah li kulli ajalin kitaab maanaam yéen ñi nga xam ne da nekkoon ci yeneen diine waa ci yeneen gisiin ngeen gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu amee équilibre ci dundam kenn ku nekk li nga am mu jox la ko heure yi nga xam ne mooy jaamu yàlla ci julli ak ci woor bu jotee yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko heure bi nga xam ne dem ca marché ba jotee mu def ko heure bi nga xamee ne fonde famille nekk ak ay njabootam bu jotee mu def ko te li ñuy wut ci doomu aadama moo ko gën a def ñëpp te mooy ragal yàlla na ngeen xam ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam équilibre lay indi ci dundu nit équilibre lay ànd ci société moo tax yonent bi comme mooy al muallimul awal le premier professeur moo tax borom bi jël exemple jox Muhammad mu xam al kamaliya ak ak ak complet kon bu ñu déparee foofu rek dañuy gis ne kon li ñuy wax famille dañ koy fondé ci gisinu lislaam mooy dafay am lu ñuy wax way ay wayjur muy yaay ak baay ak ñi ci ajo mën na nekk sax famille bu mag a mag a mag boo xam ne maam yi maamaat yi bàjjen yi yépp dañ ci bokk ak doom yi comme société traditionnelle yi ni ñu fonctionner loolu mooy gisiinu lislaam ci ci famille waaye dafay am benn responsabilité boo xam ne borom bi subhaanahu wa daf koy jël jox ki ñuy wax papa mu yanu ko waaye nag bu ko yanoo du ko yanu menn moom yaay ak ñëpp dañ ci bokk mu nekk benn unité sociale boo xamee ne ñoom ñoo koy bokk loolu la lislaam gisee famille maanaam loo xam ne unité bu la moo xam ne sociale ñëpp a ciy bokk kenn ku nekk nag am fuñ lay taxawloo nga def ko kenn ku nekk am rôle boo war taxawee ci biir loolu moo tax lislaam gisin boobu la am ci ci ci kon dafay mel ne gisin bi lislaam am mooy dafay am lu ñuy wax baay ak yaay ak i doom mën na yaatu nag bàjjeen yeeg ñëpp dugg ci waaye dafay am benn responsabilité bi gën a mag mooy njiit li kilifteef gi da koy jël jox ko euh, papa ñi ci des nag kenn ku nekk am na rôle bu mu la jox boo xam ne dafay méngoo ak sa nature loolu ci la ñuy tuddee ci famille ci lislaam mën na am famille ci yeneen ci société yu baree bari waaye bi ñu modèle bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane mooy modèlu lislaam te mooy famille ci ci ci ci ci lislaam en tant que jullit en tant que musulman famille boobu ak lislaam nim ko gisee nim ko tëralee ba àgg fi mu bëgg a àgg famille boobu nag moom la ñu gis ne dañuy commencé di ci gis ay jafe-jafe te importance boobu la ko lislaam jox am na ci xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra moo ko nettali nee na ñett ñi borom bi subhaanahu wa mooy ki nga xam ne bu fekkoon ne danaa nangam de dafa war ci suñu borom ñoom ñett moom dimbali leen suñu borom warloo na leen ko ñu ne ko yenent bi ñett ñooñu kan la mu ne al mujahid fi sabilillah ki nga xam ne dafay dafay jël kàttanam xeex ci yoonu yàlla ñu ne ko ak kan ak koo xam ne dafa def contrat lépp ba pare bëgg a fay am yéene fay borom bi nee na kooku man maa koy dimbali ci mu fay borom waaye ka mu mujjee te mu teg ko importance bu mag mooy kan mu ne koo xam ne dafa jug ngir bañ a def lu yàllay tere mu daal di dem takk soxna nee na la nga xam ne si ne moo ca war ca soxna sa man borom bi subhaanahu wa dinaa ko ci dimbali ba tax na bu ñu demee ci alxuraan tamit dañ fekkaat benn aaya wa ankixul ayaama minkum wa saalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadlihi wallahu waasiun alim mu ne yéen jullit ñi bu leen taxaw mukk di naan am nañ wala amuñ ndax dama bëgg société bi normal société bi tege ciw yoon ñu lijjanti ko te loolu ngir mu mën a am da ngeen ni takk soxna takk soxna bu leen ragal ne dañoo ñàkk ak déedéet bu ngeen àggee ci maturité yëg na ci physiquement man ngeen ko te soxla ngeen ko rek na ngeen ko def li ci topp man borom bi subhanahu wa taala dinaa leen ci dimbali waaye l'islam yemul ci noonu sax waaye dafa wax ni nit ñi ci boppam nañu organiser wu wut ay fonds ak i dimbalante ba faciliter nit ñi loolu ngir na loolu dafa bokk ci li nga xam ne ne li ñuy wax société mënta taxaw ci ni ko l'islam bëggee te famille taxawul bu famille taxawee ni ko l'islam bëggee rek société bi taxaw kon loolu bokk na ci yi nga xam ne l'islam daf ko gis mu teg ay normes yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko critère yoo xam ne ki bëgg soxna critères yooyu day sàmmonte ak moom mu ne nit ñi léeg-léeg nga bëgg soxna ngir lan ngir ne kii kat dafa am diplôme léeg nga bëgg soxna ngir lan kii dafa foog bokk ci famille boo xam ne bu siiw la bu am tur la famille la bu siiw bu am tur wala nga ne ah kii kat dafa rafet macha allah rabbi neex naa xool kon critère yooyu mën naa am ma takke ci soxla mu amaat beneen critère ah kii kat dafa nekk koo xamee dafa am alal alalam ji su fekkee ne takk naa ko dina mën a yenn bëgg-bëgg yi su ma dimbaliwut sama alal tamit am na yoo xam dana ko mën a féetewoo ak boppam di ko def mu mel ni ki ne yooyu yëpp am na yooyu yëpp baax na waaye dafa am boo xam ne moom la lislaam wax ne moom moo ko gënal te critère boobu nañ koy jiital ci yeneen yépp donte dàqut yeneen yi waaye yooyu boobu nañ ko jiital mu ne ko ban mu ne koo xam ne dafa am diine ak jikko ku am diine ak jikko bu rafet kooku na ngeen ko na ngeen ko na ngeen ko jiital ci bu ngeen dee tànn soxna wala bu ngeen dee tànn boroom kër kuy tànn sa boroom kër mooy sa jëkkër wala ngay tànn sa jabar nanga xool critère diine ak jikko doo ko xool yeneen critères yi boo ko ci fekkee baax na waaye daanaka bii rek boo ko ci fekkee moom yi ci des yëpp xamal ne bu ñëwagul mi ngi ci yoon wi dana ñëw incha allahu bi kon mu mel ni ki ne yonent bi sallallahu alayhi wa dañu orienté bàyyiwuñu rek ñuy telli telli nii daf ñu orienté ci bëgg-bëggam xam nan la ñuy taxawee ba moom li mu bëgg société bi ni mu bëggee mu doxe ko mu jox ñu ay consigne ci nii amaat beneen xadis boo xam ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi fi wax ne yéen ndaw ñi yaa machar shabab man istataa minkumul baa falyatazawaj yéen ndaw ñi ku ci bëgg dem ba yëg ne soxla na soxna na ci gaaw mu góor góorlu ci encouragé ko yemul ci loolu mu ne nii fa inna nii atakaatharo bikumul umam yowmal qiyaama na ngeen góorgóorlu ci di takk soxna xam ne li nga xam si ne mooy doomu aadama ci boppam pour mu mën a développer wu di yokk di exister te du am benn jafe-jafe mooy ñuy def reproduction maanaam di jur di am ay sët di am ay doom te bi ci gën tamit mooy di ko teel a def yooyu yëpp nag mu nekk loo xam ne lislaam ci boppam def ci soññ ay njabootam di leen ci encourager waaye di leen ci soutenir di leen ci jàppale ba ñu mën a amal loolu loolu nag moo tax bu ñuy waxtaan ci bërëb bu mel nii ñu tàmbalee ci introduction ci en tant que musulman jullit sa taxawaay ci li la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal alxuraan wax la ko sëñ Tuubaa xaadim rasul dund ko ak njaboot yi yépp ndax bu ñu seetloo ci société bi ñu nekk muy société mouridisme wax dëgg yàlla question yooyu bañ ko lijjantee yàgg na bu baax a baax ndax buñ la yóbboo ci daara ji nga jàng alxuraanul karim nga jóge ci daara ji ñu dem jàngal la say farata jàngale liggéey dangay ngay jekki-jekki ñu waxtaan ak say bokk andi la soxna su yiw su baax nga yore ko bu ko defee la juddoo barkeel loolu nag nga xam ne kon suñu xoolee ñett yooyu muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool alquran xool njàngalay mag ñi sëriñ bi ak suñuy aada ak suñuy cosaan dafay mel ne que ni teel nañ jox solo li ñuy wax njaboot lu ñu teel a bàyyi xel la ba tax na tey buñ doon tàmbali rek ci ay mil 1800 nangam nangam ñëw ndànk rek ci li gën a jege ci histoire bi gën a jege ci fii ci senegal dañuy gis ne tey réalisation yi am yépp lu tax mu mën a am mooy mag ñi dañu bàyyi woon xel keno boobu mooy njaboot mooy njaboot bu ñu ñëwee ci seen Serigne Touba Xaadimu Rasuul ni mu nga xam ne si ne noonu la ko doon tëralee. tàmbalee ci njabootu boppam ku mel ne Cheikh Mouhamadul Moustapha yal na yàlla yokk leeram ku mel ne Cheikh Mouhamadul Fadal yal yàlla yokk leeram ku mel ne Cheikh Mouhamadul Bachir yal yàlla yokk leeram te tax ñu seen barke gis nga taxawaay bi mu am ci ñoom ba tax tey yoonu murit bu taxawee grace à Serigne Touba ak importance boo xam ne joxoon na ko li ñuy wax famille teel gëstu ci loolu orienté ci ñi mu àndal ñépp loolu rek buñ ci doon wax doy na sëkk que ne tey bu ñuy wax mouridisme ci diggante bu gàtt bi mu àgg fii nekk loo xam ne léegi weesu na ab àll waaye nekk na lu wër àddina bi yépp loolu di ko waral mooy dañ doon tànn wal bu tayyibu jëndaabaatu nabaatuhu bi is isni wallati xabus laa yaxruju ilaa nakida maanaam fan daan ji di fay ji dafa nekkoon suuf soo xamee na dafa baax ñu suuxat ko jëmbat ko ba garab gi mën a am ker ak meññet ñu mën koo jariñoo kon loolu ci tënk ci côté boobu am na léegi nag ñu ñëwaat ci étape boo xam ne tàmbali nañ gis ne njaboot nga xam ne solidarité lañ ko xamee déggoo lañ ko xamee bëggante lañ ko xamee soppante lañ ko xamee kenn ku nekk am tasaamux maanaam tolérance lañ ci xam yooyu yépp ñu tàmbali gis na nag am na luy ay soppeekul luy am muy li sëriñ bi di wax ci thème bi tuddee ko tafakkuk al usari yi maanaam li ñuy wax éclatement société bi famille dañoo commencé di éclaté wu maanaam di màbb ñu ngi koy commencé di gis di ko jàngat muy feeñ ci anam yu baree baree baree bari ci réseaux sociaux yi soo xoolee sooy xool ci tribunal yi dafay am loolu yëpp loolu lay wone booy xoolee ci mbedd mi gone yi comportement yi ñuy am tey boo yoree sa oto di dem mën ngaa daje genn gone dana la sànni loxo dana wax kàddu yoo xam ne dafay mel ni ki ne kii dafa jógewul ci ab famille yooyu signes yooyu nag moo bari lool nga gis agression yi nga xam dafay am ay xale yu ndaw di fooye ay paaka ak yu mel noonu ba ay nit di ci di ci gaañu nga gis tamit soxna yu baree baree bari léegi bàyyi nañ seeni sëy dem jëri ay appartement nekk ci seen njaboot gu sew gu ñu yor duñ xam nuñ leen di def yooyu nag loolu lañuy tuddee tuddee atafakku may loo xam ne nii la meloon ne ay baaraam nekk benn dànk àndandoo di muñ ak a waaye dañu dem ba léegi séparation day commencer am ci ci famille séparation boobu ci niveau yëpp nag mën nañ nekk sax ñoo xam ne sëy ba ma nga fa ba léegi waaye désaccord am na ci kenn du diglu sa moroom kenn cofee yi ñu amoon dafay wàññeeku nga xamee ne lan laloon njaboot loolu moo commencé nag di dañ kon loolu Serigne naa moom la ñuy faral di tuddee ata tafakuk al usari yi nga xam ne kon day mel ne buum yi nga xam si moo doon yow nit ñi ci seeni diggante ak role yi nga xam ne famille bi da ko war a téye te mooy rôle yooyu mooy fexe ba yar doom yi ak soxna yi fexe ba jàngal leen fexe ba faj leen fexe ba saytu leen fexe ba encadre leen ba ñu sax weesu yooyu li ñuy wax li ñuy wax attention al ya maanaam socialiser nit ki maanaam nit ki bu juddoo nekk xale boo xam ne mënagul dara xamagul dara ñu tàggat ko ba du buy wax ak yow dana jëfandikoo terme yoo xam ne da ngay bëgg suy jëflantee yow da ngay gis ne kii kat ku ñu yar la loolu la ñuy wax attention al ya maanaam socialiser nit ki nga xam nit ki day gëm ne moom fi muy dund dafay dund ak ay nit comme moom mu war a bokk ak ñoom séddoo ak ñoom joxanteeg ñoom lu baax lépp ci waxam ci jëfam suy jëfantee ñoom du jëflante am ci anam boo xam ne dafay violent loolu mooy famille léegi nag bu ñu demee ba léegi dañu commencé gis ne da ngay jànni nit ñi boo jëflantee ñoom da ngay def nangam dangay def nangam da def nangam loolu kon la ñuy wax am na benn paan am na benn jafe-jafe boo xam ne am na ci société bi te fi mu amee ci société bi benn keno bi gën a mag ci société bi lay feeñee te mooy lu ñuy wax al usra al usra donc kon loolu mooy li nga xam ne mënta ñàkk ndax nit ki bu juddoo ñi koy njëkk a jël transformé ko mu nekk nit nite mooy famille nga doog a ñëw ci école bi nag doog a ñëw ak daara ji nga jóge foofu doog ko dem àndandoo yi doog a ñëw nga doog a ñëw nag mu dem ci société bi milieu de travail ak yooyu yëpp yooyu yëpp la fu muy jaar foo xam ne mooy tax li ñu bëgg ci moom ñu mën koo amee niñ ko bëggee jafe-jafe yooyu am nga xam ne ñépp xam nañ ko ñenn ñu ne ñu ngi koy jiiñ foo dem ñu naan ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi euh, saaga yi am na manque respect ñàkk kilifa yooyu mi ngi commencé di am mi ngi tàmbalee di am du ñu xaar nag ba liiraam jam ci ñag bi ñu koy doo ko wax mi ngi commencé di am jiiñante bi bari kenn ku nekk di ko jiiñ sa moroom léeg-léeg sax bu ñu ñëwee ci niveau national ci débat politique yi am dañuy gis ne dañ naan ah am na luy am de muy lan muy am na njaboot yoo xamee dañuy def yooyu te bu leen fàtte na eh, li ñuy wax ah, société ci boppam phénomène bu am kenn mënu ko identifier diw na yow yaa def phénomène bii xanaa kay ki ñu mën a identifier nekk phénomène bi yow yaa def yow yaa ko def mooy ñi nga xam ne ay njiit lañ te jox leen ay responsabilité jox leen état jox leen yëpp ñu war a orienter société bi ci éducation orienter société bi ci économique ba jafe yooyu société bi du ko am kon dafay mel ni que ne premier responsable bu ñu ko doon wax dañ naan ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox les moyens pour ñu. redresser société bi comme ñoom ñooy responsable yi te kon kon léegi tamit bu ñuy xool li am da ngay gis ne dafay mel ne que ne am na ci nit ñoo xam ne sax léegi poste yi ñuy am dafay mel ne que ne dérive yi ñuy def moo leen di may kàddu loolu da tey day wane nekkoon société bi am na jafe-jafe maanaam tey am na koo xam ne saagaay tax bu fekkee ne dañuy joxe ay cër di séddale ñu jox ko cër boobu mooy tax. tey bu bëggee gis personnalité diw wala seen diw wala ki diw dafa am fu mu jaar ci làmmiñam woo xam ne dafa dafa ñaaw dafa mel ne ko kon léegi arme la kàddu gu gu gu ñagas wax ju ñagas arme la pour am looy yoo xam da nga ciy da nga ciy ciy jot yooyu nag dafa nekk signes yi lan moo ko waral lan moo ko waral li koy waral ci ci gàttal bari na waaye ñu am yu ndaw rek yuñ ci lu luñ ci jël bu ngeen fàtte ne eh, suñu situation économique dëkk bi dafa am année yoo xamee sécheresse dafa am dëkk yu baree bari mbay yi ñu fa daan def doxatut nit ñi commencé di immigré immigration bi immigration boobu dafa manqué papa role bi mu daan joué ci biir famille am mënatu ko joué parce que léegi jugee na ci dëkk village am dem ci dëkk ville mu mel ne dakaar wala mu weesu foofu sax dem fu mel ni Europe wala fu mel ni Amérique nga xam ne papa boobu rôle bi mu daan def ci biir njabootam mënatu ko def ndax sori na léegi digganteem ak ay njabootam yónnee leen ñu dund ñu lekk ñu naan ñu dëkk ñu solal leen loolu lay gën a mën ka mu yar leen te léeg-léeg soxna yi tamit préparé wuñ leen préparé yoo xam ne ne rôle boobu nga xam ne si ne seen wayjur yu góor yi daan nañ ko def ñoom te ñu mën a taxaw def ko parce que léeg-léeg dafa am yoo xam ne ci seen bopp ci société bi dañuy xaw a xeeb seeni wayjur yu jigéen yu jigéen ci nim leen di yare kon loolu dafay indi jafe-jafe boo xam ne tax na dëkk yi lu baree bari ci réew mi équilibre bi amoon ak yar bi amoon ak teggin yi amoon ak rôle bi famille doon joué am na li tax mooy way jur wa daan taxaw di def yooyu amoon responsabilité bu mag boobu jur woowu nekku fi li ko fi jëlee nag mooy dafa tukki loolu bokk na ci yi nga xam ne ci yi ko sabab ci la bokk bokk na ci yi ko sabab mooy divorce yi am ci ci ci ci ci ci ci ci dëkk bi parce que bu ñu jàngatee société bi ñu xool maa ngi gis benn statistique boo xam ne nee na cent vingt six mille deux cent quatre vingt six ci ay sëy yuy tas ci ndakaaru ci be par at dafay am nga xam ne loolu boo jëlee day def trois cent et quelques par jour yoo xam dafay am ñoo xam dañuy dañuy tas te nañuy tasee dafay tas tasin yu yu yu ñaaw te bu ñu paree tamit xale ya kenn du leen jël en charge parce que da ngay gis léeg-léeg way jur wu jigéen wi ne doomi jàmbur la moo xam man duma ma sacrifier sama bopp samay activité dama ciy nekk nga gis papa ji tamit moom itam mënta yore xale yi bu ko defee xale yi man nañu nekk ci kër gi di yend ko fanaan bu ñu xëyee nekk ci seen bopp nekk ci koñ bi loolu dafay tax tamit conséquences yu mag a mag daf koy daf koy am ci li ñuy wax euh, ci société bi ci côté boobu sëy yooyu nga xam ne dafay tas baraana yoo xam ne tamit bokk na ci li nga xam mooy indi jafe-jafe ci sëy yi muy tas muy lu ñuy wax wax goo xam ne du am trafic de personnalité nit ñi dañ koy faral di def ci bu ñuy dugg ci jigéen di koy di koy labat nit ñi tamit dañuy fexe di dugg ci nit ki parce que dama yaakaar ne su ma fa duggee man kaa social la te moom cas spécial la su ko defee man samay dinaa lijjantiku te alors que soo duggee ba ci biir loolu du am léeg-léeg nga gis ne société bi tamit ba léegi am na affaire caste boo xam ne dañ ko bàyyi xel nit ki mën nga dugg ci moom bañeen takkante ba dem ba ci biir nga dem moom mu xeeb say mbokk wala yow nga xeeb ay bokkam te bu boobaa tamit jafe dafay amaat te yooyu yëpp dafay indiwaat ci li nga xam si dafay indi jafe-jafe ci kii bi léeg-léeg tamit li ñu wax maaman yi mooy ñi nga xam ne ay njabarkat lañ ak i maaman nañ ci loo xam ne dañ koy yàq ci famille yi ndax léeg-léeg nga dem ci nit na ko mu seetal la wala mu listixaaral la wala yooyu ñuy tudd ma ko sax listixaar waaye seet bu ko defee dana la wax loo xam ne ne wolof danaa saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel su ko defee manque de confiance bi mu commencé di ko indi ci sëy bi loolu dafay yàq ay sëy te sëy yooyu su yàqoo rek femme bi day daal di am jafe-jafe bokk na ci yi nga xam ne tamit dafay yàq famille yi mooy implication boo xam ne euh, parents yi dañ koy impliqué wu négativement maanaam ni ñuy impliqué woo implication mën na baax waaye am na implication yoo xam ne yi ñu koy teg ci wàllum ay yebbi ay njëkkee ay yooyu ak xeebaate yooyu ci wàllu alal yooyu noonu bokk na ci yi nga xam ne si tamit mi ngi indi jafe-jafe ci ci ci ci famille te yooyu tamit dafay tax xeebante day am te xeebante bu fekkee ne jigéen ñi dafa am victime bu mu doon da ngay gis ne du yem ci moom waaye doom ya mu am foofu sax famille léegi relation yi amoon ci famille day commencé di di ñàkk di àgg nañ ci ba nga xam léegi sax dangay ngay bëgg a gis koo xam ne dafay dem seeti ay mbokki baayam wala mbokki yaayam mais dañ ko ci xatal di ko ci bundu xatal parce que bëgganteetuñ bëgganteetuñ te yi koy waral bokk na ci mooy yii ñi nga xam ne si ni wax nañ ko ci côté boobu bokk na ci tamit loo xam ne dafay indi jafe-jafe ci ci ci ci yi mooy euh, léeg-léeg nit ki ay erreur am ñu jàpp ko dem yóbbu ko ci prison prison yi nga xam dañ fay yóbbu ay nit ñu nekk fa lu ñu mën a moytu yóbbu nit ci prison yi nañ ko def parce lu tax mooy protéger la société ndax koo gis rek muy yeewoo ci këram am na liggéey bu sell bu mag boo xam daf koy def te am na lu baree baree bari yu aju ci moom yooyu aju ci moom nag bu fekkee ne dañuy jël nit ñi di leen yóbbu ci prison yi ak ci kaso yi nu mu leen neexee rek loolu dafay indiwaat tamit beneen rànkiñee ak bañante ci société yi ci nit ñi te loolu tamit dafay li muy gën a yàq tamit mooy bii famille dafay indi ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu nag dafay dem ba dafay génn ci société yi ba tax na kon lépp lu ñu man ci nit ki balaa ñu koy tëj ñu vérifier aussi ni ñuy tëjee nit ñi ñu xoolaat ko conditions yi ñu leen teg ci prison yi ñu xoolaat ko yooyu yëpp bokk na ci loo xam ne ay jafe-jafe la fay indi ci ci ci ci famille mbokk yi loolu xam ngeen yu baree bari ci suñu réew mi fan yi ni mu toll ci tension ci prisonnement ci yooyu yëpp te yooyu en tant que ay nitu diine en tant que nit ñoo xam ne ne luy suqali société bi ak lu koy defar baax na ci côté boobu aspect boobu léeg-léeg nañ koy xoolee mbir yi te bañ ko xoolee aspect politique bi politiciens yi nag ñu ngi ci seen calendrier ñoom waaye ci aspect boobu donc tamit bokk na ci yi nga xam dafay indi jafe-jafe ci famille yi mooy li ñuy wax forcer nit ñi ci ay sëy walla sax sëy yoo xam ne mënta dem ñu forcer ko bu leen fàtte na sëy dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk du nag ne ni ñuy faral di wax eh, xale yi dañu tuuti dañu def nangam dañu def nangam dëgg la mariage précoce am na mais am na lu ñuy wax mariage tardif te suñu société am na problème boobu surtout ci intellectuel yi am na ñoo xam tey am nañ trente ans jëm ba 35 ans te bari ci société bi yooyu mënuñu am soxna kon tamit bu ñuy xoolaat bu ñuy xool ne ah. mariage précoce yi gone yi am 6 ans 16 euh, ans ak yu demee noonu loolu am na loolu mën na indi jafe-jafe naa am mën na indi jafe-jafe ci nit ki du mën a xam nan lay séyee nan lay comporté woo ci sëy bi waaye mariage tardif tamit mën na indiwaat beneen jafe-jafe ba nit ki bu demee ci sëy bi du xam nu muy taxawee parce que tàmmatul vi vivre ensemble te loolu boo ko tàmmut te xam na sëy tamit vivre ensemble la loolu tamit beneen jafe-jafe kon nañu bàyyi xel ci ñaar yépp mooy li ñuy wax mariage précoce bi am na ci ay jafe-jafe am da koy indi waaye mariage tardif bi tamit am na ay jafe yoo xam ne si ne dana koy indi ci ab sëy kon lu foofu lu ñu wax rek mooy kon équilibre nga xam ne mariage bu mu mën a doon rek liy tax du ñu am jafe-jafe boobu mooy mu am li société bi am mooy ay goro yoo xam ne dañuy encadrer nit ñi ba sëy bi mën a dem ndax sëy moom am njàng la ak tàggat la ba weesu élément yu kawe kawe donc bokk na ci jafe-jafe yooyu euh, injustice baaxul bokk na ci li nga xam mooy indi li ñuy wax jafe-jafe yi ci famille yi ndax injustice dafa yaatu même say njaboot sax da leen war a yamale say doom say soxna nag ñi nga xam dañuy am ay soxna yu bari tamit dañoo war a yamale ah, soxna yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ittaqullaha wa adilu fi awlaadikum ragal leen yàlla ci ngeen maandu ci seen diggante ay njaboot kon maandu boobu tamit bokk na ci li nga xam ne bu amee euh, mahabba ak rahma yooyu lislaam bëgg ci ak famille mu am ci dana koy indi mais injustice moom bu amee rek dafay am yeneen yoo xam ne moom lay indiwaat ci société boobu bokk na ci yi nga xam dafay indi jafe-jafe ci sëy yi wala ci famille yi mooy nga dem sëy yi ci bërëb def fa deux ans trois ans quatre ans cinq ans ba waaye yàlla tuddagu fa doom tuddagu fa njaboot ndax yëg-yëg boobu dafay metti ci ku góor ki dafay metti ku ci jigéen ki te léeg-léeg day dute ci boppam te xam ne li xale yi ba faral di wax tamit ñu koy bàyyi xel xam ne contrat sëy moom doom bokku ci woon gëm yàlla tamit xam ne doom moom yàlla moom moo koy joxe kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne léeg-léeg danañ indi ay jafe-jafe ci nit ñi ci seen wàllu sëy bokk na ci tamit te dafa commencé di yaatu ci dëkk bi mooy ak néew kàttan ci wàllu góor ñi loolu bokk na ci li nga xam ne mi ngi am ay conséquences yu considérable yoo xam mi ngi koy def ci ci société bi tey loolu tamit am na ci yoo xam ne bokk na ci li koy waral mooy tey bu ñu xoolee société yi ñu nekk nga ñëw fu mel ne Touba si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ni mu daan tegee nit ñi ni daan dundee nañ daan jëlee ay kees kenn ku ne fagee féete keesu jigéen ñi keesu góor ñi jataayu góor ñi fii jigéen ñi fii jaxasoo bi ñu wàññi bu baax a baax yooyu ñàkk gi mu ñàkk suñu société ubbeeku bi mu am ci suñu société bokk na ci yi nga xam daf koy jafe-jafe surtout nag période bi nga xam ne dañu nekk ci jamonoy technologie dañu nekk ci jamonoy internet WhatsApp. Facebook yooyu yëpp ay ay mbir la yoo xamee ne ay paaka la yoo xam dafa am ñaari ñaw ka foo ko utiliser rek mu dem malheureusement nag ñu baree bari ci ñun dañ koy jëfandikoo ci ay image yoo xam ne dana am lu muy yàq ci image deru nit ki wala lu muy yàq ci dundinu nit ki wala nit ki sa diggante ak moom am na yu mu ci yàq léegi nag yooyu noonu nga xamee ne mooy jafe-jafe yooyu am ci yii ma wax ni moom moo ko waral conséquence bi lan lay doon conséquence bi lan lay doon xam ngeen ne famille ci boppam bu fekkee ne dañ koy def ngir protéger doomu aadama ci sécurité sécuriser ko protéger euh, li ñuy wax xeetu doomu aadama ci mën a continuer dafa am aspect biologie boo xam ne bokk na ci li nga xam ne dafay tax mu am bu fekkee ne nag yii nga xam mooy rôle bi nga xam famille da koy def amul les conséquences yi mooy lan mooy ay xale yoo xam ne dañuy juddu màgg nekk ci société bi du méngoo ak société bi maanaam mag nañ ko daan ormaale du ko xam parce que kenn jàngalu ko ko maanaam ni mu waan war a demee ci école la mën a jàng ba am fu mu toll loolu du ko man moom ci boppam dafay bañ sax institution yi nga xam moo nekk ci kanamam institution yi bi ci jiitu mooy ay parents am am am xale yoo xam ne am benn haine dañ koy amal seeni parents te kooku bu melee noonu nag nga xamee ne ci niveau individu bi la mel noonu mën nga wax ne du fa yem waaye dafay jàll ba du xam li mu bokk ak ñépp nan la ca war a jëfandikoo boppam rek lay gis auguste bu mag lay gis xeeb na ñeneen ñi wala bañ na ñeneen ñi wala sa comprendre ne nit ñi ndekete dañoo war a dund ensemble loolu moom du ko du koy du koy xam su ko defee loolu daf koy def mu am ay comportement yu garaaw yoo xam ne foo toll mën ngaa dégg muy saaga foo toll mën ngaa dégg muy yàq mën naa dem sax bay agressé ay nit mën naa dem sax ba nga xam ne si ne dafay jëfandikoo ay drogue yàmba yooyu yëpp parce que amul famille nit ku amul famille la amul famille famille bi moo ko war a jàngal nan la war a comporté woo ci société bi li sëñ Tuubaa di wax ne anna tariqatal adabi tarxamu saxiir kal ummi wal ab wa tawxiirul kabir wa jaalu mislika li nafsika leçon yooyu nga xame ne danaan la société bi ñetti étape la ki la mag ak ki nga mag ak ki nga maaseel ñett yooyu ñoo nekk ci société bi ñett yooyu nag nit ku nekk nan nga ko war a jàppee ki nga xam si ne yow yaa ko mag da ngaa war a am yërmande ci moom teete ko jàpp ci lu xam ki nga xam si ne moo la mag da nga ko war a wekk danga ko war a wekk respecté ko su la defoon loo xam ne sa dëppoota sa xalaat respect bi ndax ak bi mu am moo tax am na loo xam ne sañoo ko loolu du du lu luñ lay ñaan far force la yow loolu sañoo ko moo tax nga gis léegi xale sax mën nañ jàpp na mag mi da ko tooñ waaye ñëpp dañuy dal ci kawam parce que réaction bi mu def boobu bokkut ak boo xam moom la ñuy xaar ci moom comme mel na ne léeg sax mën nañ la tooñ nga toññar bi ndax ka kii ngay waxal di jëfanteeg moom day mag te mag ci suñu aada ak suñu culture dafay am symbole bu mag a mag a mag xale tamit dafay am symbole bu mag a mag kii nga jamonoonteel li nga bëggal sa bopp na nga ko bëggal lu mel noonu loolu nag moom lay njaboot famille di def ci doomu aadama loolu nag bu nekkul ci nit ki nu nekkul ci nit ki rek nit kooku maanaam man ngaa wax ne ab ani ab animal la ndax nii nga xam si ne socialisation bi waroon nekk ci moom nekkul ci moom moo am mu xam mu xam mu am xam-xam wala amul xam-xam waaye loolu moom kenn deful ci moom te loolu bu ñu ko deful ci moom nag dafay nekk danger ci société bi danger boobu nag ni muy nekk ci société bi mooy valeur yi société bi am nga xam ne ay valeur yu yu baax la tey am na kàdd yoo xam ne du génn saw làmmiñ am na jikko yoo xam ne sañoo ko am na col goo xam ne sañoo ko sañoo ko sol ci société bi am na kàdd yoo xam ne sañoo ko wax institution yi yooyu yëpp nag danga nga koy màbb da nga koy bàyyi loolu nag moo am ci léegi nii commencé suñu suñu société yàq yi ngeen di gis ak toj yi ngeen di gis ak Euh, réseaux sociaux yi saaga yeeg yooyu yëpp rek mooy famille yi ci boppam ñoo commencé nag di génn retiré wu ci seen mission bu ñu retiré wu seen mission nag dañ waroon taxaw amul ko way taxaw ndax du école bi mën na ko du daara ji mën na ko du daara tarbiya ji mën na ko su ko defee dafay daal di dafay daal di yàqu su ko defee tamit nga gis ne da ngay sëy ak nit ki sax ngeen taaxali ko waaye da ngeen di bañante léegi te lislaam li mu wax mooy fi imsaakum bi fin aw tasriixun bi ixsaan maanaam bu ngeen demee ba xam ne continuer bi ci sëy bi dafa bari ay conséquences léegi waxtaan leen ba juboo su ngeen waxtaanee ba juboo nag fexe leen ba continuité am ci relation bi en tant que nit ak nit en tant que ay xarit waaye cox noonee du am bañante du am dara du am léegi nag bu fekkee ne nag euh, li war a dox nag doxul bu boobaa sax léegi sëy bu tasee rek da mbokk yépp dafay tasaale loolu ci conséquences yi nga xam ne eh, dafa ko usar yi daf koy faral di di def kon li ñuy sawaw naan kilifa diine yi dañoo war a wax diw yi dañoo war a wax ña war a wax ñépp mooy yi ci boppam ñoo am jafe-jafe jafe-jafe famille yooyu nag mooy tax ki la jiite sax ki la jiite fexe na ba jiite la waaye boo xamee ci famille ban la jógee ak nan la nekkoon ci famem dangay gis ne kon loolu ndekete dafa dem ba jiite di doo ko feeñ waaye nekkoon na ci moom yéen ñëpp xam ne tey dëkk bi kàddu ñu ko fonk bareetut ñi ñuy jiite ñi fonk kàddu bareetut loolu ma nga déparé ca yar ba ca baas ba ca ca famille nga gis ne tey mbir hypocrisie bi am ci dëkk bi lu ñu war a jàngat leer lan moo ko waral nañuy fexe ba wéer ko ki benn waay rek wala wéer ko benn groupe rek su ko defee voilà ñu jël média yi tàggat leen ñu jëm ci loolu orienté leen bu ko defee ñu xam ne yow askan wi sax da ngay mujj ne man média bi dutuma ko diglu parce que dañuy dañuy fexe ba détourné ma man ci li ma xam te li ma xam wéer na ma ne man loolu lu baax la loolu nag li ko waral mooy nit ñi nga xam ne si ne ñoo nekk ci askan wi léegi jiite askan wi wala sax ñu am jiite nag dafa yaatu kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati mën a nekk jiite ci sa biir famille mën a jiite ci politique mën a sax nekk kilifa diine boo xam da ngaa jiite ay nit da nga jiite ay nit ku jiite ku nekk rek na nga xam ne am na comportement yoon ba ngay mi ngi am ci yow ci sa biir famille fa nga départ ci njaboot gi foofu nga jëlee jikko yooyu nga doogoon nag di màgg ak moom di màgg ak moom di màgg ak moom yooyu tamit ay mbir la yoo xam ne bu ñuy jàngat société di xool li xew ci réew mi mënuñu ko régler te réglé wuñu nekkiinu nit ñi ci biir famille ak ci biir biir askan yi kon am na conséquence boo xam ne dafay dellu ci nit ki waaye dafay dellu am na yoo xam dafay dellu ci communauté bi communauté bi tey booy xool këru diine yi ci bari gone yu ndaw dañuy jug di wax te li ñuy wax seen poche moo tax jàpp ne mbir yi léegi ay pexe la loolu lan moo ko waral mooy nit ñu waroon taxawee ci yar leen pëstéef tàggat leen orienté leen yóbbu leen teg leen ci lu leer loolu moo amatul équilibre boobu nag dafa amoon ñu ko doon doxal léegi ñu commencé di manque équilibre boobu manque équilibre boobu nag moo indi dérive yi ñuy gis ci ci ci société bi kenn mucc ci nag amul benn famille nag bu ci mucc tamit ci ci réew mi foo gis am na fa ay ndaw yoo xam ne euh, respecté wuñ institution yi respecté wuñ seen i wayjur respecté wuñ seen mag respecté wuñ xale ñoom nañuy fexe ba dund nañu yaakaar noonu lañu war a dundee ak nuñ ko war a amee loolu lan moo ko waral bokk na ci mooy famille yi ni mu demee loolu nag ci conséquence yi na bokk conséquences yi kon yaatu na trop léegi nag lan lañ yaakaar ne mooy solution ci conséquences yi euh, responsabilité bi war a am te yonent bi sallallahu alayhi wa di koy jàngal ci ay ahadis bu yu baree baree bari il faut ñëpp jëlaat seeni responsabilité il faut kenn ku nekk ci ñun mu wax ne lii kat am na agsi na ci man wala agseegul du ma bàyyi il faut ma xam ne c'est pas fin du monde mën nañ liggéey ba dellu siwaat valeurs yi nga xam ne si ne moo nekkoon ci suñu société ñu xoolaat bu baax a baax méngoo nag ak modernité bi nga xam si ne dafay am kon kenn ku nekk ci ñun na jëlaat ay responsabilité am xoolaat li nga xam ne si ne mooy mooy am ci société bi bokk na ci yi nga xam ne mën na indiwaat ak dal ak équilibre ci société yi mooy waxtaan waxtaan nag doo ko def ak kenn waaye da ngay respecter sa soxna respecter sa boroom kër respecter say doom yu ndaw yi respecter say jarbaat respecter say dëkkandoo di waxtaan ak ñoom bul jëfandikoo mukk violence wala xeeble seeni xalaat ndax wolof yi dañ naan xel mu rafet puso bu réer la mag mën na ko for waaye gone tamit mën na ko for kon waxtaan di diisoo bu jaree sax ñu ne weer wu nekk njaboot gi nañu toog ñu waxtaane lii loolu bokk na ci li nga xam si suñ ko defee danañ am famille bu gën ci famille bokk na ci tamit li ñu wax daara yi ak méthode bi nga xam ne si ne mag ñi dañ ko doon def mooy ban méthode suñ cheikhu naa bu busa mii man damay jur sama doom ma xam ne moom mii moo ma gën a doy sama doom ma jël bëgg ay jikkoom yu rafet ma jël sama doom jox ko ko ngir mu am ay jikko yu rafet loolu bokk na ci li nga xam da koy indi moo taxoon mag ñi sax daan jël sa taaw wala sa laneen di koy tuddee say doomu baay joxante cër yooyu yooyu noonu bokk na ci li nga xam ne nit ki ala kulli aal su demee foofu kii dana dana jege Serigne Cheikhouna Ahmad Bousso ba dana def ci moom tarbiye boo xam ne su demee fa fa mu jóge woon foofaa baaxoon na lool waaye dana fa fekk lu gën fa mu jóge looloo waral sëñ Tuubaa njaboot gi yëpp jëloon seen doom yóbbu ko ci moom lu mu fa nekkee rek bu fa toogoon sax defut dara buy ñëw dana yóbbaale barke parce que lam fay gis ci ab yar ak i teggin ak nite su demee fa mu nekk dana fa doon ab sang kon bokk na ci yi nga xam ne lu lu ñu am la ci suñu société muy bañ a foo gisee koo xam ne moo la gën nga dem yóbbu fa sa njaboot ñu yaroo fa loolu bokk na ci amaat na tamit lu am solo loo xam ne dañ ko commencé di di di ñàkk muy li ñuy wax daara tarbiya daara tarbiya bokk na ci li nga xam si ne danay dimbali famille yi ci bu baax a baax ndax léegi bu ñuy xool euh, concentré wu nañ ci jàng ci jàng ci jàng ci jàng te lu am solo la nag waaye bu ñuy fàtte ne tamit sëñ tubaa moment bii ñu nekkoon ba mu ca tollee li mu waxoon amara ni rabbi bi rabbi al asxaaba bil himma wala u rabbihim bi darsin faqat sama borom digal na ma may yar njaboot gi yar boo xam ne dafay sell duñ yem ci jàngal leen kese kon fa kasratul ilmi bi xayri adab jaalibatun ilal ada wa taab kon daare tarbiye yi ñi diplômé ñi diplômé wut ñëpp nañ ko gëstuwaat dundalaat ko xoolaat ko xool li ciy jóge ni mu amee solo ndax tey bu leen fàtte ne bu ñu xoolee Sénégal ñu xool murit yi ñu jóge ci dëkk àll yi jóge ci daare tarbiye yi dem Sandaga dem achelem dem marché kolobaan dem marché yi ci Dakar yëpp suñu demee liggéey la xam yore seenu téere wàcc dem fa ñuy fa ñuy fanaan dugguñ ci benn complex ba tax ñu yilif ay àddina yilif lu baree bari kon ni ñu koy gannaawale tamit bokk na ci solution yoo xam ne suñu ko defee wax dëgg yàlla mission yi ñu see Ahmad Bamba Xaadim Rasul bàyyil dana dem te héritage bi gën mag ci bim ñu bàyyil bokk na ci mooy daare tarbiya ngeen gis comme xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha radiyallahu anhu rôle bi mu ci def nga Cheikh Mouhamadul Fadal rôle bi mu ci def ak li ñu gor ci ay tool gor ko ci ay suuf li liggéeyee sëriñ bi way usiru ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa jikko yooyu yëpp nag dafa nekk ci daare tarbiya yi kon tamit eh, ñun ñu nga xam ne ay ndaw lañ te suñu way jur yi am lu ñuy xamal nañu bàyyiwaat xel domaine boobu di ci gëstu bu baax a baax a baax suñu ko defee danañ am foo xam ne danañ fa danañ fa àgg aussi tamit bokk na ci yi nga xam si ne euh, ci solution yi la ci proposition yi nga xam yaakaar nañ dañu ki ñu fexe ba lii ñu wax internet ak jumtukaay yu bees yépp ñu koy jëfandikoo ci anam bu baax anam bu rafet anam bu baax anam bu rafet bu ko defee jëfandikoo googu ñu koy jëfandikoo anam bu baax anam bu rafet du lu ñuy contrôler doomu aadama waaye dañuy def ci moom jikko bu rafet bi nga xam ne si ne nitu yàlla yi ci boppam moo leen taxoon jug mooy al ixlaas al ixlaas maanaam nit ki ay ngistal ay nëbbutu yooyu yëpp danga koy teg fële nga xam ne foo mën a nekk rek ixsaan boobu ñuy wax mi ngi ak yow na nga nekk ak moom ba ni borom bi bëgg ni sëriñ bi bëgg boo ko defee société bi ñi say njaboot danañ am comportement bu rafet a rafet ndax gone moom ni muy jàngee du da naan ko baa siim mais day xool yow li ngay def mu mu koy def ak tarbiya mu mulaahaza daf lay seddu rek daf lay observer li ngay def après mu def ko bu fekkee ne yaa ngi ciy dugal yu mu xamut dafay dafay dugal yooyu yooyu daal bokk na ci ay mbir yoo xam ne gis nañ ne bu ñu ko defee danañ am taxawaay bu mag ci suñu société te fi ñu bëgg àgg dinañ fa àgg loolu nag mooy nekkoon kàddu yoo xam ne waajaloon nañ ko ci thème bi eh, ñuy jégalu di sant bu baax a baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala suñu wax ji mën a nekk wax joo xam ne dana amal njariñ société bi ñu encore ñu ñaan laat sëriñ Muntaxa yàlla guddal fanam may ko wér wax dëgg yàlla damay wax ne bu fekkoon ne doomu aadama mën na jël aw fanaam ji ko joxe addiya ma ne li des sama dund kon dama koy jël jox ko sëñ Muntaxa addiya ndax yelloo na ko mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mm-hmm. euh, jërëjëf sëriñ Ahmad euh, mel na ne liñ doon xaar ci waxtaan wi euh, gis nañ ci lu kawe suñu njort thème bi vraiment traité nga ko ci façon boo xam ne dara nekk ci dana yombal dégguwaay ci ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñoo fi teew wala ñu ñuy topp ñëw nga ci point bi ci njëkk leeralal ñu lan mooy gis-gisu lislaam ci al usra donc njëkk a ñëw ci diine yi fi nekkoon ban wàccuwaay lañ joxoon usra waaye nag wa bil axas diine lislaam ji nga xamante ni ci la ñu bokk lan la gisee famille nga leeral ko ginnaaw bi it nga jëw ci yitte gi nga xamante ni moom la lislaam jox famille ban yitte la ko jox ban yitte la ko jox ak naka la lislaam soññee ci góor gi bis bu demee ba war a toll ci at yi mu war a denc soxna naka la ko soññee ci mu dem ak naka lay tànne soxna soo xamante ne dana mën a ànd ak moom jaamu yàlla yooyu yëpp sëñ Ahmad ñëw na ci ginnaaw bi it mu ñëw ci tomb bi nga xam ne moom mooy euh, tafakkuk al usari mu leeralal ñu ko wax ñu mooy lan mu wax ci biir woo ne tafakkuk al usari moom bu ñu ko waxee rek mooy mooy bu doon te ab oto la dañ naan oto bi dafa paan dañ naan famille bi kon dafa am xalal dafa am dafa am paan nga xam ne bu fekkonte ne ab oto la dañ koy yóbbu ca fañ koy réparé ñu jéem a xool nu ñu koy lijjantee waaye usra bi tamit saa yu demee ba am tafakku ko rek mooy wane ne am na ku waroon a joxe benn dawra boo xamante ni nekkatu fi nga xam ne dañuy wuti lan moo koy remplacer ñëw na tamit ci yan mooy sabab yi yan asbaab moom mooy tax li ñuy wax at tafakkuk al usri di am muy lu ci mel ne passé ñaari way dencant yi dem ba tàqalikoo lu ci mel naka ñàkk lu ci mel naka euh, faatu dogalub yàlla lu ci mel naka wax lu amut waaye lu ci mel naka tamit li xew léegi muy ak njabar muy ak njabar ndaxte léeg-léeg daanaka boo ñëwee ci ay gis koo xamante ni day ñëw rek fekk ab seetkat ñëw di ko seetloo fekk moom sax nekkul way dencante mu ñëw mu ne ko sa wujju wa nangam fekk moom sax nekkul ci bu mu sëy nga xam ne léeg-léeg bu ñëwee lam koy wax jàpp ba gëm ko ba dem doxale noo xamante ni ak tàqalikoo ci famille man na ci am kon yooyu tamit bokk na ci bokk na ci tamit li sëriñ wax te leeral ko leeral boo xamante ni bu am solo la muy intervention yi xamante ni moom la waay jur yi di def ci ñaari way dencante yi intervention yi ci def loolu nag bu ñu ko waxee daanaka côté waajuru jigéen bi moom moo ci ëpp moom mooy ëpp lu muy intervenir ci ñaari way dencante yi bay dugg ci seen biir loolu tamit day ay jafe-jafe ba tàqalikoo di ci am ba njaboot yi di tisaaroo bokk na ci tamit suñu Ahmad dikk na ci muy ñàkk am doom ñàkk am doom comme ni mu ko waxee ne contraception yi moom doom bokku ci woon maanaam luñ ciy séntu la waaye doonut loo xamante ni war na mën a tax ab taqalikoo di am kon daal suñu Ahmad ñu ngi lay sant bu baax ginnaaw bi tamit ñëw na ci yan jeexintal moom la at tafakku al usri di di di di indi ci société bi yan jeexintal lay indi yooyu moom problème yu bëree bëree bëree bari la bi ci njëkk rek dañ mën koo xam mooy njàngu xale yi maanaam xale bi bu ñu demee ba nga xamante ni ñi ko waroon a saytu ñi ko waroon a càmbar ñëpp kenn ku nekk ci ñoom démissionné na nekk ci leneen booba xale bi li muy njëkk am jafe-jafe rek mooy ab yaram ab am njàngam moom la njëkk am jafe su jaxama tamit ñëw na ci solution yi solution yi nga xamante ni moom la joxe ngir ñu mën a saafara jafe-jafe bii nii jafe-jafe bi nga xam ne moom mooy eh, màbbuk famille yi mooy tafakuk al usari yan mooy asababam yan mooy yan mooy solution yi mu ñëw ne waxtaan waxtaan bu njëkk dañ daan wax rii ñoo famille yooyu amatul léegi bu njëkk dañ daan wax ne famille bi am bis boo xamante ni kilifa gi day toog kenn ku nekk toog ñu wax la defal nii defal nii defal nii kenn ku nekk ñu jubbanti ko ku nekkoon ci la mu war a nekk ñu soññ ko ca ku ca nekk nekkutoon ñu jubbanti la naka noonu yar bokk na ci tamit euh, maanaam at tarbiya bokk na ci bokk na ci solution yi naka noonu internet mii ñu jëfandikoo ñu jëfandikoo ko ci jamono boo xamante ci ci ci façon jëfandikoo boo xamante ni moom mooy wi gën ñu jëfandikoo ko ni ñu ko war a jëfandikoo loolu tamit day tax day tax yàqu-yàqu yi muy waral ci famille yi dootul amati kon sëñ Ahmad ñoo ngi lay sant di la gërëm di rafetlu waxtaan wi lool di ci sof rek di wax ne liñ naan at tafakuk al bu ñu ko dee wax lu ci bëri léeg-léeg dafa cee am lu euh, luñ naan mubashar lay nekk ak boo xam ne day nekk xayra mubashar bu ñu nee mubashar bi nga xam ne directement lay nekk mooy kenn ci ñaari way dencante yi wala kenn ci ñi daan jouer rôle bu am am solo ci famille bi nekkatu fi waaye léegi li xew doonatul mubashar boobu masalan usra bi ma ngi fi moo xam mu nekk moom tadda wala mu nekk moom ta usra nawawiya comme ni ñu koy waxee usra boo xamante ni papa yaay doom la wala mu nekk usra boo xamante ni maam ji def ci nekk nijaay ji nekk ci tante ji nekk ci keneen keneen nekk kenn ci ñoom dem ba nekkatu moo xam passé moo tax moo xam tuxu dem nekk feneen moo xam moo xam nga xam ne mubashar la waaye bi am jamono ji mooy tey ji dañuy bokk nekk ci biir kër gi waaye relation boobu du am kenn ku ñu nekk kenn ku nekk ci day seetlu ne léeg nga dem ci kër fekk famille bi yëpp toog bokk nekk ci salle bi taal bi waaye kenn ku nekk mu ngi sëgg ci mu ngi sëgg ci téléphone am tey ji xale bi nekk ci dëkk bi ci kër gi wala waxambaane bi wala jigéen gi am na ku muy jokkool di am ak moom relation yoo xam ne lu mu xam wax ko lu mu xam nettali ko moom moo ko jox conseil sax te boobu neexee kooku noonu ma nga nekk ca Amérique boo moytuwul te ki ko gën a jege nekk ci biir kër gi nekk ci buntu néegam bu amoon soxla du ko yëg kon loolu xeetu tafakuk usri la maa masalan ñoo ngi bokk nekk ci biir kër gi ñoom ñaar waaye tey ji kële la gën a jege ci kii loolu tamit loolu tamit façon bu bees la boo xam ne surtout nag laata réseaux sociaux yi di ko waral télé yi moom moo ko njëkk waral yu ñuy wax yu ñuy wax yu ñuy wax euh, yi ñuy wax télé yi bu njëkk da ñëw ci kër gi doon kër gu mag bu timis jotee dañuy génn tele bi teg ko ci ëtt bi njaboot gi yépp toog di seetaan kon ne fàttaliku na jamono yooyu talaata nga xam ne moom lañu daan seetaan théâtre ñëpp dajaloo kenn ku nekk toog waaye léegi néeg bu ne day am télé nga xam ne kër gi bu dee juróomi néeg kenn ku nekk toog sa kër di kenn ku nekk toog sa néeg taal sa télé yéen yéen a ngi consommé lu ëpp ci courant parce que da ngay taal télé taal ventilateur yi parce que te néeg mënoo ci nekk di taal ventilo yaa ngi consommé courant bu ëpp en même temps tamit yaa ni nga koy mabbe mooy lan mooy li ñu daan boole nga xam ne dañ daan bokk ñun ñëpp toogandoo ci ëtt bi di seetaanandoo télé wala ñu seetaanandoo télé ci salle bi ñun ñëpp ñu boolu léegi kenn ku nekk sa néeg ngay toog seetaan lu lay tax a génn ñëwal reer te fi ne nii fi ñu jëmaat nii tuuti ci côté boobu lañ jëm ci kanam tuuti daanaka mën naa ne la bokk reer boobu wala bokk añ boobu tàmbali na sax daanaka mën naa ne la dootoo ko gisati kenn ku nekk day lijjanti noo koy defee bu ko defee yooyu yuñ jud yëg lay nekk waaye day xew ci biir société bi yooyu noonu waaw bokk waaw comme ni ko sëñ bi wax ndekki kenn ku nekk da ngay xëy rek jëm lijjanti nooy ndekkee bu defee yooyu euh, euh, at tafaku usari la waaye nag xayra mubashar la nit ñi ñu ngi bokk fenn fu ñuy yeewoo waaye amuñ benn relation bokkut bi nga xamante ni xaj na kee daa passé soxnaam soxna si nekk du fi wala bàyyi ji dafa tuxu wala ki dafa dem fële wala dafa dem fële wala leneen kon daal loolu moom mooy lu am am solo la na parce que tafaku usra saa yu xewee ci usra bi rek day feeñ ci société bi moo tax mooy li sëñ ma di wax léegi da ngay lijjanti ba sa kër jag nga lijjanti ba sa kër jag waaye boo génnee rek booy ñëw xol bu tàng nga indaale lu tax nga indaale xol bu tàng da gis ne li ngay bañ di ko moytu sa biir kër fexe bu amu fi mu ngi fees dell ci mbedd mi mu ngi fees dell mu ngi fees dell ci mbedd mi te yow bu amee ci mbedd mi rek am ci société bi rek yow mënoo cee mucc lu tax mënoo cee mucc parce que sa njaboot gi nga yar ci biir kër bu ñu génnee ñoom ñooy ñooy wat ñoom ñaar ñooy wat ñooy daje ci école bi ñooy daje ci daara ja ñooy daje ca footballukaay bi ñooy daje ci jàngukaay bi ñooy daje ñooy kon yooyu yëpp yu jara yu jara yu jar bàyyi xel léegi nag li ci ëpp solo nag nga xam ne bokk na ci yi nga xamante ni moom moo ko mën a solutionné moom mooy at tanshia al ijtimaaiya at tanshia al ijtimaaiya boo xamante ni saklu salim lay nekk maanaam euh, rôle yi papa yi daan dox ak maam yi ak yaay yi ak ñeneen yi te léegi ñeneen dugg ci muy télé yi dugg ci réseaux sociaux yi dugg ci ñu xool nuñ koy encadré encadré ko ba nga xamante ni xale bi yar gi ñu koy yar du am temps en route bàyyi ji du na ko defal ñuy télé bi ne ko defal nii maanaam ñoom ñaar ñëpp ñu bokk benn xedef bu ñuy def ci te loolu état rek moom moo ci mën a jàppale njaboot yi kon loolu sëñ Ahmad jógi sant di la gërëm di sant mbooleem ñu fi teewoon ñëpp di sant kilifa yu baax yi fi teewoon jërë ngeen jëf ñuy ñuy jàllale eh, muhaadara bi nga xam ne moom moo war a am suba eh, ci thème bu ñuy wax al muhaafada ala al bia darura ala al afraad wal mujtama darura ala al afrad wal mujtama muy thème bu am am solo maanaam naka la ñuy euh, wattoo conserver environnement bi lu mënta ñàkk la ci nit ñi waaye lu mënta ñàkk la tamit ci société bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ak ay jërëjëf euh, Serigne Cheikhouna Bousso ci modération bu am solo boobu xam naa bu ci turu commission scientifique bi nga xam ne ñoo taxawal waxtaan yu mel ni fii ci Maktabul Cheikhoul Khadim ci njiital Serigne Bassirou Diatara mi ngi sant bu baax a baax. suñu amat euh, tasrif sugu ci thème bu am solo bi ñu indiloon dina koy fàtt muy la dislocation familiale cause et effet di santaat baax a baax tamit waa presse bi nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale xam naa ne ko suñu seex naa bu soo waxee rek dañuy jàllale thème suba bi mu nekk préserver l'environnement est une nécessité pour les individus et la société ñi ñu ko ñi ñu ko war a defal nag nekk suñ mortaala ka suñ mortaala kan ak sëriñ Jibril Ndiaye ki ñu war a feggool bi nekk sëriñ Mbacke Diop Xodar xam naa bu subaa jàmm incha allah ñu taxaw def donc euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax leen ziyaar di sant sëriñ Ahmad Tafsir ci tomb bi nga xam ne moom la doon waxtaane doon tomb bu am solo di sant mbokk mi mu ko feggaloon sëriñ Seexuna Buso jàpp naa ne tem la boo xam ne damay wax néew na luñ koy faral di waxtaane te mu doon luñ war di waxtaane jamono ju ne ndax famille dafa doon lu ñor lislaam lool buñ delloo ci alxuraanul karim dellu ci njàngaleem yonte bi alayhi salaam dañuy gis ay textes yu baree bari yoo xam ne da ciy soññee te li waroon am dëgg-dëgg mooy at-tamaasuk al usari maanaam jàppaloo ci biir famille bi ñi ne ñoom ñooy ponk yi ci gën a dëgër muy ñaari way dencante yi bàyyi ak soxna ak doom yi ràbbaloo bi waroon am nag seen biir boo xoolee jamono ji ñu toll day mel ne mi ngi tàmbalee wàññiku ndànk-ndànk ba loolu tax sëñ ma mel na ne loolu la doon waxtaane muy jagee gi waroon am ci diggante baay ak doom wala jagee gi waroon am ci diggante ñaari way dencante yi suñ xoolee tey jii dañuy gis ne daanaka amatul te yenn yi mën naa doon loo xam ne yi koy waral ay mbir lay doon yoo xam ne ci biir kër gi lay bàyyi ko waaye yeneen yi ci desit mën naa am ci bitti lay bàyyi ko rawatina jamonoy technologie bii nga xam ne ci lañ nekk suñ soxnaa wax na ko sànq yaakaar naa loolu am xalaat di setantal da ngay ne léegi day mel ne li ñuy wax wasaayilul ittisaal maanaam mooy jok jokkoo yi nga xam ne moom dañuy jëfandikoo day mel ne nekkul dëggi-dëggi wasaayilul ittisaal daan dañoo gën a teqale gën ñoo soralente loolu nag li koy gën a firndeel mooy boo xoolee ni ko sëñ bi waxee rek sëñ seexu naa te loolu ñu bari seetlu nañ ko da dugg ci kër léeg-léeg fekk mbooloo mu bari ñu ngi toog ñoo bokk fuñ ne maanaam seeni yaram man nga ne ñoo bokk benn barab buñ ne waaye xol yi moom sorente na lool ndax ku ci ne yaa ngi tiim sab téléphone kii ngi jokkook koo xam ne amaana man naa am France la nekk kii ma ngay jokkook koo xamante ni am amaana mën naa am ma nga nekk Amérique ki ngi jokkoog keneen kan léeg-léeg nit dana dugg ci kër gi sax nuyoo ay yoon yoon du njëg ne am na koy nuyoo ngir sëgg seeni téléphone loolu nag jafe-jafe la bu rëy rëy boo xam ne internet andil nañu ko te bu njëkk mag ñi loolu néewoon na ci seenu dundin maanaam boo masaan dugg ci kër dangay fekk waa kër gi ñépp toog ci ëtt bi toogee ci ëtt bi di diisoo di waxtaan di sottantee xalaat léeg-léeg maama nga toog ca wet ga ñaari sët wala ñetti sët ñëw dend ak moom mu leen di leebal wala mu leen di caxal te léeb yooyu mu leen di leebal da leen daan yee ci seen wàll àdduna cax yooyu mu leen daan caxal da leen daan yee ci seen wàll àdduna léegi nag ndax loolu mi nga am léegi da ngay dugg ci kër bu fa maam nekkee sax boo maytuut maam it moom ma nga ca whatsapp ba wala ma nga ca yeneen ya talut ay léeb talut ay cax maanaam léeb ak cax daa moon solo lool léegi amatul daanaka gisatuñ ko yaay it ma ngay toog ak doomam ju jigéen ndax am na doom ju jigéen at yomte ni ba ca xase ba toll rek yaay da ko war a jege moom doom ji war di jege yaay ji muy waxtaan ak moom di ko xamal yoon bi nga xam ne ci la war a teg tànkam léegi nag loolu amatul doom ji jigéen ji nan lay def daanaka ci internet bi lay ne ma nga ca whatsapp ba wala ma nga ca facebook ba ma ngay jox kook koo xam ne ab jàmbur bu góor la ci moom ma ngay am yu muy dugal ci xelam yoo xam ne loola mën na ko sànq ci àdduna waaye mën na koo sànq ci aw doxinam loolu nag jafe-jafe la bu rëy boo xam ne mi ngi tàmbalee faral di am te jàpp naa ne wareef na koo gën a xoolaat ni jëfandikoo internet wareef nañ koo xoolaat bu baax a baax mu bañ ñoo yàqal suñu doxin mu bañ a yàq famille donte ne sax dañuy tànn ay bis yoo xam ne dañ naan bi sàngam ci waxtu sàngam bu jotee famille bi ñépp nañ dajee ci ëtt bi wala nañ dajee ci buñ dajee ci ëtt bi wala ca saal ba ki nga xam ne mooy responsable bi yilif kër gi muy bàyyi waxtaan ak njabootam sottanteeg ñoom ay xalaat waxtaan ak soxnaam wala waxtaan ak ay soxnaam sottanteeg ñoom ay xalaat loolu dana doon loo xam ne luy jariñ famille bi lay doon tey dana tax ñu xam fi ñuy teg seen tànk jafe beneen bi amit ci biir famille yi léeg-léeg dañuy seetlu ne baay bi nga xam ne mooy doon responsable ci kër gi li ci ëpp léeg-léeg day am melokaan wu muy melokaanoo ci biir kër gi ba daanaka njaboot gi duñ ko ñame looloo jafe-jafe la da gis baay boo xam ne bu génnee ci mbedd mi day kaf di ree di masla waaye daal bu duggee ci kër gi rek day mel ne gaynde googu nga xam ne dara dootul yëngooti lool nag jàpp naa ne baaxut ci kër ndax bàyyi daa war a ubbiku ba njaboot gi ñeme ko bu ñu amee jafe-jafe wala ñu am problème ñeme ñëw toog ak moom waxtaan ak moom mu jox leen ci ay solution bu ko laajee wala mu tegtal leen yoon woo xamante ni ci la ñuy jaar ngir ñu mën a xam fi nga xam ne fi la ñuy teg seen tàgg tudd na ko sànq muy lu mel ne fase ku ne xam ne ne fase moom ci lislaam moom la suñ boroom daganal ba pare gën koo bañ waaye loolu suñ borom gën a bañ day mel ne noonu yàlla ba di iblis moom la gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam am na ci benn xadis bu muy wax de iblis saa bu xëyee day jël ab gàngunaayam lal ko ca kaw ndox ma yabal ay abalisam maanaam ay saytaane yu ndaw di leen ndox doxloo mission kii ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàngam ray diw sàngam mu ne ko defoo dara kii ñëw ne ko man fexe naa ba diw sàngam ak diw sàngam dootuñu tuddanti mu ne ko defoo dara kii ñëw ne ko fexe naa ba diw sàngam ak diw sàngam def nangam mu ne ko defoo dara waaye kii ñëw ne ko fexe naa ba diw sàngam ak diw sàngam ñi ne ay ñaari way dencante lañ woon teqali ko bu ko defee mu ne ko baxin baxin iskay iskay daal di koy taf ci moom nga ne ko day mel ne loolu la iblis gën a bëgg waaye moom la suñu borom gën a bañ fase moomu nag léeg-léeg su amee dana jur ak tafakkuk ndax jafe-jafe bi am mooy léeg doom ji moom mooy doon victime bi ndax yaay ji mën naam day dem bàyyee ko baayam bu ko bàyyeeg baay ji baay jeet toogut ci kër gi day xëy di liggéey léeg-léeg am mbindaan la koy bàyyeel mbindaan moomu li ci ëpp moom mooy joonjoo ak moom mooy jaxasoo ak moom mën nañoo wax ne sax moo koy yar lu nekk ci moom moo ko ciy def yàlla doon nag koo xamante ni jikko yu rafet yu war a nekk ci moom nekk na ci moom mais su fekkee ne loolu amut it jikko yi nekk ci mbindaan bi rek moom lay jël bàyyi ji mën naa xëy bis rek ñëw ci kër gi gis doom ji def loo xamante ni dana ko jaaxal lool te fekk ne yoo maanaam moom mooy cause bi ko waral teqali ko am na yaay ji dem na bàyyi ko ak mbindante moom talu ko bu xëyee ma ngay liggéey bu dee tamit léeg-léeg yaay ji lañ ko bàyyeel yaay jeet li ci ëpp léeg moom du toog ca kër ga daanaka day génn wuti lu mu am bàyyi doom ja amaana ma ngay jaxasoo ak ñoom te nii warta jaxasoo ak ñoom ba loolu mën na ko caa jural ay jafe-jafe yu baree bari waaye jàpp naa ne nag euh, tomb bii nii di ko faral di waxtaane am na solo lool waaye delloo siwaat démb day baax lool maanaam delloo siwaat démb ci ni nga xamee ne ñun noonu lañ doon dundee na baax lool ci jamono ji ñu toll bañ a topp riirum technologie mu bees mii ndax buñ ko toppee rek danañu xañ lu bëree bëree bari loo xam ne jàpp naa ne dañuy jàpp ne ñun dañ cay defaroo waaye lu ñuy yàqal sax lay jur ñu ngi sant sëñ Ahmad bu baax a baax wax dëgg yàlla tomb bi am na solo am solo goo xam ne képp comme te nii teewlu nga ko dang ci jariñu bu baax a baax xëy na euh, kàddu yi da cee mënutoon a ñàkk rek waaye kon sax du ko jar ndax mat na tey liñ ci soxla woon lépp am nañ ko ci kon daal nañ gën a yaraat njaboot gi gën leen a jàngalaat gën leen xamalaat fi nga xam ne fi lañuy teg seen tànk ñu ngi sant bu baax suñu waajur ak docteur Xaarim Silla mi nga xam ne moo waroon a def thème bu am solo bii comme niñ ko xamee rek moom doon koo xam ne kenn la ci daara ji yaakaar naa biñ tàmbalee jataay yi ba léegi at yi jàll daan na fi ñëw ñëw fi ay yoon yoon xëy na ren rek ab liggéeyam xaw a xaat ba tax mu boole woon ñoo sëñ Ahmad mii ngir mu def ko te jàpp naa ne lañ doon séentu ci sëñ Xaadim mel na ne amee nañ ko ci sëñ Ahmad kon ñu ngi sant sëñ Xaadim bu baax a baax di sant tamit sëriñ Ahmad ak mboole mbokk yi nga xam ne teew nañ ci jataay bu am solo bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kay jërëjëf euh, Serigne Mbacke Diop Xudar ci commentaire bu am solo boobu mu mel ni mu ñàkk waaye day wane rek euh, importance bu thème bi am solo di profité di sant bu baax Serigne Ahmad bi nga xam ne moo doon def waxtaan wi wax dëgg yàlla boo ko teewlu di ci jariñu di sant bu baax suñu Cheikh Lamine mi feggaloon jotaay bi xam naa dañuy taxawal foofu ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen defee ñu tàllal loxo yi suñu def ñaan ba suba ak jàmm للإياب